Njaay ci loo ne lépp naay ah daf leen nee na tey doxul léeg-léeg <laughs> Isaar Isaar a grand Isaar homme d'affaires Isaar Mor Isaar yaa bi Cheikh Béthio euh, alaaj ah, Jakarta ay dee mbir ma jolli na am waaw waaw ñett kay nga ñaan ñetti Jakarta semaine bi Xaadim Diop Géejawaay laa bokk. Géejawaay gañe nañ. waaw waaw. 77 535 59 jooni jooni. Babacar Sall Medina laa bokk. Risis waaw gañe nañ de. Risis sa dëkk téléphone am lan la 77 663 38 jooni jooni. Gaña Jakarta point jooni jooni Diallo et frère. Bonna. aw oh, bi ñoo na te sama mbokk la. waaw waaw ñoom ñett ñooy ñoo gañe de chaque semaine semaine bu ne ñaari jakarta yu ñuy gañe boo defee rek ñetti en envoi jooni jooni mën ngaa am chance kon bokk ca fii nag ba fanweeri fan moom xam nga coow lu rëy léegi mbambali moom sa waay ñëpp xam nañ ko fi mu nekk ne le mooy lan pick-up bi ah, waaw ak mm. quatre bi de mm. Mazda bi de ak de waaw waaw waaw waaw waaw Jakarta ah sama waa ji nee na ma jakarta yaa ngi noonu gaare foofu buntu bi room de ah ah waaw ah waaw ah waaw sine bar i Pape Daouda maram ak Birane sine bar kay <laughs> may Daouda sine bar way way way way ah cay sama waa ji njaay waay waaw ah, waaw ah conférence waaw Iran Ndaw alaaji day ñëw suñ koñ de sijmit dañ Euh, le waaw ah, waaw le day ñëw le day ñëw le huit de. le xanaa samedi lay doon. waaw samedi la doonal ci oto bi ah daa jëf waay euh, aywa kii moom nee na alaaji sakado ci biir lan la defoon ordinateur iPad appareil photo disque dur passeport permis de conduire carte grise ci turu Ibrahima Ba képp ko gis da nga woote ci 77 533 73 82. waaw moom it nag li mu li mu boole lépp ci saagam bi moom saag bi dañ koo sàccam da koo fàtteem. ah ok dafa bari sax. sax boobu mu ne fi koo fàtte waaye li ci ne ci alal. waaw. ah. léegi léegi daaw. permis de conduire. ordinateur iPad appareil photo disque dur passeport. waaw. carte grise. ci turu Ibrahima Ba koo gis na nga woote ci 77 533 73 82 wala nga indi ko fii ci Zik FM kii moom sac bu ñuul bu réer képp koo gis na nga woote ci 77 974 13 37 ah doom non nice rek kii mi ngi tudd Cheikh Ciss kooku la Cheikh Cissé de Cissé Diongom kii Cheikh Cissé la tudd nee na dafa watal alaaji téléphone Samsung Galaxy ah ci benn njaga njaay oh garage Peterson oh, ku ko for ngir yàlla mu indi ko moom moo bind de mu indi ko wala ilaa mu woote ci soixante dix huit cent vingt neuf quarante et un quatre vingt dix oh Cheikh Cissé oh, ci benn njaga njaay la ko bàyyi wala nga woote ci 76 361 73 sac bii moom sac de couleur bu verte la. Mm. def ay documents. pièces yu am importance. ajjuma booru 11h30 rond point Cambérène koo gis na nga woote ci 77 574 69 12. ah ah suñu jigéen bi suñu consoeur bi alaaji. Mm. moom it dafa réerle ndey kumba bu stade yéene kaay. suñu làmb. document yu am importance hein mhm. hein porte-monnaie portefeuille carte presse sunu lamb ak estat carte presse ANPS hein C'est mhm. dafa wara dem nak ci championnat du monde hein su jumulé wala oui wara dem carte am il faut mu gis ko mhm. carte presse internationale lu mënul ci tukem gi la carte presse internationale sportive ANPS ak carte d'identité ak ay photo doomam ah waaye dimbali leen Ndey Kumba Faal képp ku gis posetu Ndey Kumba Faal bi indi ko gaaw Zik FM ci nu mu gën a gaawee ah ah aywa yaay sekk kon conférence bi fit mit ñu ngi koy préparé ak oustaz Iran Ndaw bu Sen TV kii moom mi ngi tudd alaaji xaadim sàll ba ñëwati na xaadim sàll vingt-huit jours a ngi nii bi mu réeree ak léegi nii koo gis na woote ci 77 452 12 34 kii moom wëlis bu defoon ñaari extrait de ak benn tisu cuub ah moo réer garage Bambay wàcc arrêt buntu Pikine ku gis na woote ci 77 203 94 12 ah cooy waaj cooy waaj cooy waaj cooy waaj jële ah acca yow indil ma xool aywa kii moom euh, bijou réer la ñaari safe tiga et frère mu defoon ay jean ak budi ak super cent ak ay dàll ci benn taxi Sandaga ku gis na nga woote ci 77 642 15 86 ah ah Joni Joli seen tirage bi toog kañ la. ah chaque mercredi lañ def tirage. non bii lëndi la. ah bii di ñëw lëndi la. dañ koo wàññi dañ koo tànc. très bien na gaaw rek na gaaw rek ñu jël affaire yi. aywa kii Momadou Momadou lan la nii Momadou Dian Momadou Dian kan nee na otoom la ñu sàcc démb aw. Oh! dañ ko sàccal rëy na di ay boor leen vingt une heures vingt deux heures quatre cent cinq. couleur bu weex ah ak benn bande bu ñuul matricule bi lan la DK 21 71 N oh arrêté ko <coughs> gis daal na nga woote ci 77 570 31 28 kii moom Abdoulaye Diop nee na daa réerle carte lan otoom marque Laguna ci benn taxi la ko bàyyi koo gis na nga woote ci 77 313 34 68 ci yàlla kii moom Njoogu Mouhamed Samake ah ah lan la réer li mu ne portefeuille Gazolaay Maxtaar APR bu mag bi doomu ndeyu président Macky tey <laughs> lii Njoogu Mouhamed Samake nee na dafa réer li portefeuille booru Sandaga rond point ba portefeuille carte nationale d'identité carte électeur carte bancaire carte ferlo IPRES permis de conduire xaalis ak yeneen i bagage képp koo xam ne for na ko daal na woote ci 77 740 64 08 Fabal Babacar As waaw ah, kii mi ngi tudd da Ndaw da Ndaw sa passeport mi ngi fii fii ci Zik FM ñëwal jël ko mhm. ah? ak kan ah bon aywa aywa aywa aywa aywa aywa waaw waaw tirage bii di ñëw kon altine la alaaji mm. ñetti envoi rek nga gañe kon benn jakarta ñëw laf rek waaw waaw Valir Samb sama jigéen bi waaw waaw Omar Bokum Kuddu waaw maa ngi leen nuyu de ñoom Valir Samb bon naa ñëwaat léegi ne waxaat ne ñoo gañee mm. si meer tëstu tey bi alaaji mm. tës baa nga jóge diggante Nigéria ak Niger mm. RC Sénégal Njaay ji ñëw rue 23 angle corniche dugg biir Zik FM super ñooñu doyloo nañ ñi déggoo ma de mm-hmm. tës bi diggante Nigéria ak Niger la jóge Nigéria Niger waaw ñëw ba fii dugg si fii ci biir rajo bi adama <laughs> tojal la mbir mi lan la 1982 alaaji 83. waaw ndaw si nee na hmm. la ndeyam ak baayam gëj a gisante waaw seen papa jékki-jékki rek takk ay bagaasam ne mes waaw dem ndeke Sénégal la percé seen bàyyi sénégalais la muy wër di wër di wër di wër moom ba 2009 mu gis bàyyam laaj ne ko nag lan moo tax nga jékki-jékki dem mhm. baay bi daal moom daal ni mu ko expliqué dafa mel ni daal moom daal teyu ko daal si kaw gàttal waaw ah, ñoom seen yaay la ban kii ban nationalité la seen yaay daal bu dul nigérian mhm. waaw di nigérian daal ñaar yooyu mhm. après moom dina gën a expliqué waaye daal xam naa ni daal ah day alaaj tës la woo xamante ni daañu di si ah Cerno <laughs> eh, Amidou Rabi Ndiac Medina Ndiac ah waaw géej waay ñaari boulangerie waaw ah, waaw dégg loolu alaaj mhm. ah hmm. tës bi daal xaw na complexe daal boo bëggee dégg dëgg rek hmm. ndaw si moom lañ ko bàyyi moo xaw ko bopp ñu teg ko ñu ko déglu aywa sama papa damaa jugee Niger ma ñëw fii def recherche sama papa bu ma defee recherche sama papa yàlla defee gis naa sama papa ma ko gisee ma fekkee amul soxna fii amul doom bu ko jege ma fekk fu ma lu ma ko fekkoon daal neexuma sa papa moom waa Niger la sénégalais la sa papa sénégalais la cent pour cent sénégalais la sa yaay mooy waa Niger sama yaay nigérian la du Niger Nigéria la jóge sama papa moo ko jëlee foofu indi ko Niger ñun ñu juddoo Niger. ah donc sa papa foofu la nekkoon quoi. foofu la nekkoon durant toutes les années la foofu la nekkoon ñun ñëpp foofu lañ juddoo léegi bu ñuy bu ñu dem jamono dem dem dem sama papa dafa xeexee rek sama yaay moom ma ko expliqué nee na benn guddi la sama papa jógee nee na sama yaay man tey duma fanaan fi loolu ban année la woon. c'était en deux mille en quatre-vingt-trois. Hmm. vingt fin 82 début 83 la. léegi sama yaay ne ko sama yaay moo ma ko expliqué loolu. waaw moo ko demee ba laaju ko la sama yaay nee na ma sa papa daa xëy guddi rek mu ne ma tey duma fanaan fii te aw ma sama papa bu muy génne trois complets la jëloon mu génne mu ñëw Sénégal depuis 83 ba tey sama papa ak sama yaay kenn gisul moromam. man maa defoon recherche ba yàlla defee man gis naa ko. yow ban année nga ko 2009 laa gisoon sama papa gis naa ko mi ngi ci jàmm ak salaam mi ngi dund ba tey léegi nag bu ma demee dem naa Niger ma seet sama yaay ma expliqué ko gis naa sama papa ma waxtaanee ak sama rakk yi man lay leen ak bu ngeen bu sama papa yore leen laa leen di ñaan ngeen dimbali ma ngeen jéegal ko ci yàlla rek tax. mais sa papa bi nga ko bi nga ko gisee est-ce que wax na la lan moo tax mu abandonné loolu. waaw bu ñu ko laajoon man laaj naa ko ma ne ko lu tax nga dem bàyyi lu mënta doon rek yaa ñu jur waroo dem dem dem ba bàyyi mu ne ma man bu may ñëwee yàlla xam na xaw ma lu tax ma ñëw ci takk naa sama sàkk mi mënumaa ñëw loolu la sa papa wax ma dafa am beneen soxna fi amul sama papa fekkuñu ko ak soxna ndax soxna bu ñu ko mayoon rakku première jabaram la gaañu na sax ndax bu ma laajoon sa papa yow sa conscience bi bàyyi na la yow nga ñëw ñun nga bàyyi ñu foofu macha allah am na ak sama yaay fukk doom ak ñaar benn bi man fekkuma ko gis ma ko ndax sama mag la daa gaañ bu ñu ko tuddee ba pare la gaalif sàññes man fekk xawma ko mais ñu ma xamoon actuellement sama papa am na ñaar doomam bu mu génnee àdduna mais bu mu barki démb rek mi ngi may laaj ma ne ko papa yi ngi ci jàmm. Mm, ñoom Niger la ñu génne àdduna quoi xamu ci dara. xamu ci dara jusqu'à présent sama pap xamul ay doomam yooyu génne leen àdduna. mais bu ma ñëwee fekk ko fii saa mi alhamdulilah rek parce que mi ngi ci ay bokkoom mais condition yi demeewul noonu. fi mu ne yéen dëkk. dëkkuñu daa man maa ngi dix huit kilomètres dix neuf kilomètres de Louga foofu laay sëy yàlla may na ma borom kër macha allah amuñu benn problème xanaa tolof tolof àdduna moom ma dab mais maak sama jëkkër amuñu benn jafe-jafe. léegi gannaaw yow sa papa réeroon na leen léegi gis nga ko mu ngi ci jàmm alhamdulilah mm. léegi lan moo nekkoon sa tànk. man sama tànk bu feneen bu ma ñëwoon léegi damaa ñëw wuti aide sociale damaa bëggoon dem seeti sama yaay bu fekkente ne askan bi mën leen maa jàppale ngir yàlla ma indi sama yaay mu jàkkaaroo ak sama papa ñu baalante ak ma loolu rek mooy sama problème daa xam naa sama papa yore na sama yaay ak bu rëy 83 ba 2015 gisoo sa jabar ci bu muy dem ci buum la ko bàyyi ñu sama yaay di toogu di toogu di toogu ba tey gisoo sama loolu rek mooy sama problème man à l' à l'heure actuelle la moom mooy sama problème maa bëgg dimbali laa ñëw wuti bu fekkente ne jullit yi ñu ma tane man leen maa dimbali ngir yàlla ma dem seet sama yaay jëli ko indi ko bëgg naa ko bu fekkente ne amuma aide bu nga xamee mën naa indi sama yaay bu ñu ma mënee jàppale ma dem seet sama yaay ñëwaat ci sama sëy bi bëgg naa ko daal am naa doom bu ndaw un an six mois sept mois la am bëgg naa dem mais bëgguma duma ko yo fii laa ko bëgg bàyyi ci ay papam ba ma dem te ñëw ma dem seet sama yaay ñëwaat loolu mooy problème bu ma indoon fii. ku la dimbale rek nga bëgg nga delluwaat dëkk ba. te ñëw moom laa bëgg. alaaji doy na waar ah dama foog ne moom mii sax de xam naa ni li bàyyam ak yaayam déggoowul xëy na mën na koo metti waaye moom it day ah ku jógee Nigéria di seeti sa Niger di seeti sa papa Sénégal sax foofu say say ji Louga waaw moom it day yoon wi gudd na waaye xam naa moom am na chance mu ngi déggante ak yaayam ah man de man fii nii nii alaaj man damaa jëmee ci suñu borom. quatre vingt trois. Hmm. ba léegi. ah. en tout cas. ndeysaan xëy na fi triste nag mooy fi mu ne. fi mu ne. sama papa dama bëgg mu gisanteeg sama yaay parce que mi ngi yoreel ak suma yaay. bàyyi na ko ci buum 83 ba léegi maire baa nga toog. Hmm. ah. métti hmm? na de. trop trop trop trop ah alaaji yow la bàyyi daanaka lu mat fanweeri at presque. ñaar fukki at ak nangam sangam ah. ndeysaan. fanweeri at kay. mais est que papa ji moo ko tey. ah kay nag waaw ah, loolu lay wax ci nag voilà. gars yi ñëw nañ. joueurs la wala amateurs yi. joueurs yi la joueurs yi wala supporters yi. joueurs yi parce que am na benn am na benn groupe boo xam ne moom ay supporters lañ ak ñeneen ñoo xam ne tamit. ah jour jour yaa ngi nii. dinañ nag vraiment sant naa bu baax ginnaaw bu ma débarrassé si daaw la. ah. ah célibataire boobu daf may day ñëw añ si sama kër sonal ma te da ngay waar. ooy. non am na du jaaxaate gis nga baykat yi nekk si mbedd xam ah. li nga wooyee daaw da dem. waaw ndongoli tellement dañ ko xàmmee koor gi si ñoom lañ ndogoo. ndogale rek waaw. <laughs> kay moom waxambaane woo xam ne da ngaa ci mu takk. te takkoo moom. noonu rek lay demee de sa ndogu moom sa ndogu képp boo romb taxaw alaaji jënd dara lekk puus dem daje gaay yi ci tali bi ñu jox la café nga dóor avance. defal ma defal ma toom ak nen na jaxasoo na may nees saf. léeg-léeg lii ah? nan la booy foofu lay ndogoo ngoon. booy fa laay ndogoo ngoon waaye. waaye yéen seen jakarta yooyu noonu bu dee bëgg ngeen ku leen ko changé envoyé leen. waaw waa Ahmed waaw wax wax ci de. ah. waaw loolu lañ bëgg de. ah xamal a la benn affaire de. ñetti envoyé joni joni de boo ko defee moom dal ci moom. semaine bu ne ñaari jakarta ngay gañe. semaine bii Khadim Diop Géejawaay. Babacar Sall Medina réussir ak gagnant Jakarta point joni joni mooy Diallo et frère bon naa fële ca bi ñoo na ah. man de bëgg eh. ah, en tout cas lundi nañ tirage de. mais trois trois la ko pour man ah kon bële mooy dix fois bu oto bi. non c'est que la mais mais point jooni jooni tamit dañ leen di joxaale ci xéewal gi ñoom it dañuy liggéey di boo jaarul ci ñoom du mën a nekk di. Eh, eh. mais oto bi moom dix fois ngay envoyé quoi. ah. oto bi oto bi. oto bi waaw waaw il faut mu mat ko kay wala jëm kaw rek waaw waaw. ah kat boobu kat kat <laughs> la ci jaay ah. Ah, de kat kat moo ko amoon moom vraiment naaj teg leneen lu nen. jaa non mën naa liggéey la àndal. ah alaaji. alaaji la àndal la àndal de ah, nii sax ci ay tablette nen. wuy ma. yëpp samay nen bu may ñëw jënd sama fukki xal photon teg ci kaw. waaw waaw alaaji waaw jënd sama ngooñ def opération tabaski ah, yow alaaji comprendre yow nekkal nekkal di liggéey weer ma nekk ci noonu rek bon ñu bëma six mois nga xool loolu loolu auto entrepreneuriat léegi léegi weer bu soog ma ne la booy boo bëggee ma lebal la benn cinq cent mille <laughs> waaw waaw loolu tamit waaw waaw waaw loolu tamit mi ngi ci de wala wala tabaski jot ma jox ko xar alaaji ñun ñuy fayeeku weer ñoo gën a ndóol waaw loolu dëgg la la ilaha ah mais ma dama ne am na kenn koo xam ne day mhm. xaalisam dafa réer marché fiit mi mhm. bu dee mi ngi may dégg ki réer xaalis léegi nii marché fic mi ah. ku réerle xaalis marché fiit mi ah. ibataal kooku nga nekkal te mu for xaalis bi na dem place su Daawda Sekk na dem place su Daawda Sekk mhm. waaw kay na fa dem bu ko defee ku réer li xaalis marché fii mi na dem place su Daouda Seck. toog xaar. waaw waaw na fa dem toog xaar. Daouda Seck alaaj. Hmm. da borom yàpp bu set boobu. suñu Daouda waaw suñu Daouda Seck mi. waaw waaw waaw. alaaj boobu mooy yónnee bu gaaw. ah. ma ne lii mooy yónni bu gaaw yónni bu gaaw. yónni bu gaaw baa ngoog de kii man kay ni may doxalee moom xam nga rek moom jooni <laughs> jooni ma yàq. jooni hmm. jooni ma yàq. ki nga xam ne eh, dama ne maa la ko wax xoolal ki nga xam ne maanaam moo réer le xaalis bi eh. na daw place daaw da sekk toog fa ibataa la ngay ñëw ak ki for xaalisam bi na eh, moo tax ma taamu daaw da sekk daaw da sekk dina waaw <laughs> ay ah. géej waaye yaroo fa màggee fa da koo mën a dóor wala bu dul loolu Adramé nga nga wax Adramé. ah ah eh, eh, Adramé Sarr rek. Eh, Triandé moom jàpp na nga xam. <laughs> boo déet déet waxuma la loolu sax. mais alaaj hmm. imaginel marché ba nga nekk fa naan da ngay jéem a dóor bañ ne leen nit jàpp ku dee ca marché yaa tàgge sa bopp de. <laughs> ok. Ah. xanaa ko rep. ah. ah ah, ah man su ma rep. laa ilaha <laughs> ah. non daa bëri ay dóorkat nag. waaw. gars yi na ñëw ne la am na ay billets dix mille am na ay billets am na ay billets mille francs. Eh, ñu ne la du sa bos. Hmm. <laughs> Hmm. waaye yéen ma ni. waaw bon comme que yéen a ngi entraîné kon match jarul ñu ciy wax lu bari sax. non non non wax ci. non non non non ñoom dañ ko bàyyi sax am na ku ma laaj de ci wax. non oh, match ban match bi le quinze la stade bari. non match bi. convocation 7h30. match bi. waaw. gaa yi ne gaa yi tàppet yee. <laughs> dañ leen a tiitaloon ci ay kaddu. ne fi nekk na seen sëriñ mu ngi bëgg a jàpp ndax tuxal nañu dat bi tuxal tuxal tuxal tuxal tuxal ba léegi. Ah, alaay boo bëggee dégg dégg. waaw alaay mas. Salif Sow Salif Sow sa boy waaw. temps yi dañ ne noo yaram bi yëpp day métti ma ne ko defagoo dara yow nga gëj a entraîné jékki-jékki dégg match rek nga da ngay entraîné. match bi siiwatul de. ah dana siiw de match ba day xam nga ne ñoom ñoo koy déplacé waaye match ba daal moom xam naa ne. ah ku ñëwul stade sept heures et demi huit heures pile doo am place. Hmm? Bougane dana fa nekk. Youssou Ndour dana fa nekk. ministre euh, Matar Ba ministre des sports dana fa nekk ak euh, maire bi Alioune Sall incha allah dana fa nekk. ak le waaw médiateur bi kay mu ngi ca digg terrain mooy médiateur bi waaw ak ak suñu parrains yi kër euh, toure sénéra ak maam Less Camara la les deux doyen ñoom kay fi nekk nii kay officiel ba defar nañ ko ba pare moom nii nii kay bis bu rafet la ñuy xaar woo waa Sukura bu Géejawaay ñu ñëw arbitré réglementaire xanaa ah? ilon ma ne man daal man daal na am ay arbitre de tous hmm. am central am quatrième arbitre hmm. am superviseur commissaire aca ñu def point waaw ak ci aw dat moom amatu fi moom le quinze août ak dañoo am orchestre rek ñun dañuy def nang loolu moom amu fi moom waaw en tout cas daal bu ñu bu ñu bu ñu dawee bu yàlla dogaloon tey ñoom ñu daw mm. nañu ñu ne ñin forfait lañ koy compter ñu ñu def ñu def ñu def trois zéro waaw ñoom buñ bëggee sax nañ yóbbu match yi waaye man nañ ko footballé bi ci biir si seen immeuble bii nii nañ fa aménagé ñaari néeg génnee ay poto tàllal ñu def ko petit camp 4 4 wala ñu duma leen dé ma de wuyu ma damay euh, mais euh, eh, match bi loolu la sax en tout cas euh. seen sëriñ yi de moom keroog li ab li ñu wax fii nii oh, oh alaaj ah, ah alaaji nañu xoolal dañ doon la jël wër. dat bii de du baax ci ñoom. la quinze quinze août génération quatre vingt dix ñoom Moussa Diallo jaajëf Faye ak ñoom Atoumane waaw waaw Baba Louké ñoom Dieng ñooñu ñu ak ñoom Ngañ. waaw waaw ñu organiser match bi. alaaji kii fii match moom. Eh. ñoom ñoom Malick Thiandoum dem nañ stade ak lépp géré nañ tout lépp mat na su nekk nii. Eh. ama Amadou Barry moom dépassé nañ di rëdd ay terrain ak ay lasaw macha allah. Eh. waaw waaw. sama xarit bi sama mag ji mbay fay entrepreneur rëdd na ko ba mu leer nañ nekk nii moom teg puus rek a ci des tàlli na ba ni ñeret tàlliku na ba ni ñeret sotti suñuy xorom mu bañ a taw fooge kon kon mën dañoo daw ah dañoo daw de mën dañoo wut prétexte na benn waaye bu may wër foofu su ma ko tàggalee déggal kii naan ma ay jël nga matt bi matt bi may yenu bay <laughs> daanu nga naan jël nga matt mais ñu ngi Fatou Abdou Ndiaye ñi ngi matt la ñuy ragal ngi mattal waaw loolu la nag ah, ragal tapet de kii nee na ma abbaar ah, rek amet rek gañe nañ match dëgg la dëgg la léegi yéen ana foo leen ne nii ci booru stade bi moom bu sam taxawee rek dootoo gis Fatou di Ndiaye ni nga mel ñaaw na mais nag lii la islam santaane sëy de noo amul ay say càmmiñ lañ amul xoolal ñun ñëpp door ñu ci rosi eh wuy ma bàyyi ñu jëlal muse léegi la ay jigéen naan moo man góor du ma ko jëndee suñu waa kër laa la wax man góor hmm. man duma ko jëndee waaw yow damaa am dof man man aw ma lu samay càmmiñ wax di dëgëral a gis nga bu la footballé ah, ah, ah, te diggante ak sam yàlla na gën a neex <laughs> aywa sineer fépp alaaji hmm. ah léegi day léegi day xaw ma nag moom ndaw sii day di pexe ci moom hmm? mun luy pexe ci moom ah ah hmm. nga daal man de fi mu pexe bi daal alaaji lañ war a gaaw xool hmm? ah comme gis na papa ji xanaa ah kii ko dimbali rek mu dem kay rek la de hmm, leneen waaw loolu doom moo ci pexe de ah, waaw waaw Hmm? Hmm? Hmm. kii di ma laaj Sidi Ndiaye ay Ndiaye dañ koo affecté laaj Sidi Ndiaye fan la nekkati d'accord. Euh, Régidac. ah Régidac. affecté nañ ko. commencé mbay tey alaaji deuxième tës bi mhm. <laughs> euh, ilaay <laughs> euh, laay alaaji ñu sikkal jigéen ñi naan dañoo bëri pexe de waaye góor ñi mhm. kenn du ñoom sëñ Abdou Karim Mbacke maa koy nuyu ah kenn du ñoom alaaji am hmm. yàlla na mu ziar sëriñ Abdoul Aziz al amin maa ngi koy siyaar di ko nuyu. waaw waaw borom addi bu doon bi waaw waaw. waaw waaw dégg nga loolu yow laaj hmm. ah ndaw sii de nekk naag seen benn dëkkandoo gis xale bu jigéen bi alaaji di jàppanteeg ay moroomam ñuy hmm. xeex. Hmm. ñu koy sonal. alaaji ndaw si jël xale bi. fat ko ci biir këram. ndax xol bu baax. waaw di ko dimbali. Mhm. di ko jàppale héberger ko mhm. ndeke alaaji li xale bi nekk ci biir kër gi yëpp mm. moom jëkkër jaa ngi xool xale bi parce <laughs> may dégg bu baax mu ngi koy xool fa mu mujjee moom nag mooy ne ko ciix daal di koy takk takk xale bu jigéen a am problème ci koñ bi benn soxna ne fa di ko gis ñu koy néewal dooleek ñoomi seen mhm. mu jël ko fat ko ci biir këram comme suñ kaa yi ñu fi am rek waaw ñàkk a taxawuy rek doo am foofu fanaan ah nga jël fat sa boroom kër ka nga fat mu jël ko fataat ko mhm. waaye bu ko neexee sax alaaji mu takk mm. góor a moom xolam waaye la ci am moo doy wax waaw da koo takk ba pare ne mes ak moom bàyyi fi jabar ji ah. Ah. xamul fan la jëkkër ji nekk ak ndaw sax xamul fan la luwe du dépense du dara toroxtaange googu lay dund instant bi doon héberger ba jëkkër ji jël ndaw sa yóbbu héberger hmm. moom mi nga xam ne nag maanaam moo doon héberger waate instant bi alaaji mu ngi ci mbedd mi amatul ko héberger eh, eh. Eh, sans domicile fixe la STF la sëy day caaxaan yow lii moytu anamu moom man de sama doom damaa nekkoon ak sama borom kër ma dund moom lu metti ab xale bu jigéen ñëw ko muy xeex ak ay xale góor ak sama xol bu rafet ma def ko comme sama doom ma làq ko sama ginnaaw mu oññeeku mu nekkal sama jëkkër ba sama jëkkër wiiri ca kaw ba takk ko ma nekkal moom te man aw ma benn am naa juróom-ñaari bant lépp mu ngi ci ma ku ma dimbali. léegi xam nga la comprendre nga. nga ne sa borom kër nga nekkaloon. waaw léegi bi ngeen di nekk yéen ñaar. waaw après benn xale bu jigéen bu dëkk sa koñ dëppul sax ci koñ bi dafa ñëw fii liggéey si waaw muy xeex ak ay moroomi xale yu góoram ma ne ko kaay nga toog fii ndax histoire baaxul yow nga jël ko fat ko ci sa biir kër sama biir kër parce dimbali ko ak ni muy xeexeek nit yooyu noonu foofu ca koñ ba waaw mu metti lool ma fat ko comme comme sama doom mm-hmm. mu wiri ca kaw sama jëkkal wëlbatiku àndaat ak moom ba takku ko ba woon ma ginnaaw moom mu suufu la xale bu jigéen ba nga fatoon ci biir kër ga moo la suufu daal di ànd ak sa borom kër waaw wóor na ci suufuma uh-huh. mu àndal sama borom kër sama borom kër wan ma ginnaaw gis nga ni ma jeexe aw ma lu ma lekk doom aw ma lu ma naan léegi daal moom euh, waa paa bi daal waa ji dafaa jeeñ paa bi jël na ko wan ma ginnaaw aw ma doom aw léegi dëkk ñoom ñoom nekkatuñu fii si wax Dakar de dem nañ yoon ñu luyee ji feneen leen fen yónneewuma ma lekk yónneewuma ma naan doom aw ma ku ma defal dara ku yow dong yaa nekk fu mu toll wóor na suñu borom man kese maa lekk aw ku ma yor aw du ma dimbali ci dara. sa say mbokk yow. samay mbokk xam nga mbokk léegi du ma ne aw may mbokk de mais kenn damaa defalul dara. aw am naay mbokk mais kenn xam nga kenn du dimbali kenn léegi. madara dara Lolo tak tax ma ñëw fii sa doom yëpp yëpp yëpp dañoo gaañ yëpp ci bâtiment lañ ma abal foofu laay lan moo leen dal ñooñu bañu gaañu sa dom yoy noonu yëpp ah yàlla rek bala maa wasin ñu gaañu aw ma ko ma toppatoo balaa maa wasin ñu gaañu comme awarte rek ba biir bi jeex tax mu muñ nag ba gis nga nag bi ngay nekk ak sa borom kër da nga bi ngay nekk ak moom mooy ki la trahir ànd xale bu jigéen boobu nga nekkoon ki nga fato waaw da nga doon def ay avortement ba mu mat juróom ñaari di doom waaw waaw war na suñu borom xanaa daanoo woon faju normalement doon naa faju xam nga rek aw ma doole aw ma kattan aw ma ku ma jàppale su ma ci fenee daal yàlla fu ma àgg fu dellu nekk jóge woon ñëwaat ci sama doom sama doom nga <laughs> war na suñu borom eh, sa borom kër bi woon tamit moom mënul woon rek balaa muy def li mu def nii au moins mu takk ko sax boole leen yéen ñaar ñëpp mën naa jàppale yow mi nga xamante ne ne sëyal nga ñaata at ngeen def ñaata at ngeen def sëy yàgg nañu de yàgg nañu de mawon kina may torox ci bâtiment lañ ma abal fan yi sax lay doog am bâtiment dama wër ba sonn fan yi lay doog am bâtiment sax bu may fanaan looloo man de vraiment ñi takk seen jànq yeeg yooyu yëpp daal yooyu yëpp dara néew ci moom bëggeel la rek waaye ah alaaj bu ñu nekkoon ci place su jeeg gi tamit day ñu miti de ah. damaa xam damaa xam ni nga yor sa jànq ci biir kër ba muy doogu dikk moo toll ni weñ wi ah di fanaan weekend ba weekend mu dem di xont am na ay njaatige yu baax alaaj jamais ñu ber jànq bi ci lekkam yéenay ndékkandoo yéenay toog añ ba suur toog boo tëddee nii sax nga gis mu bokkatu sa wet ndeysaan mm. nga mel ni loo jur mm. miin bu weer wi dee sax léegi dootu fi nekk naa la ay ana samay trente mille mm. boo ko joxee sax quinze mille moo envoyé dëkk ba rek mu ne la tante dencal ma quinze mille yu des mm-hmm. génneel ma cinq mille bii nga xam ne moom la ñuy nattee fii ci suñu waa dëkk nga xam ne at bu ne dañ ko fay yónnee dencal ma ñaari junni du la fatt ci dara añ beeg lépp alaaj nga jàpp gone googu ah di ko toltolaan ak di ko neexal ak di raay ko toppatoo <laughs> jàppe ko ne rek sam sam càpp su ndaw ndax boo ko gisee benn yéen ñaar doo leen i maas bu dee ndigg taar kàlle yaa ko yaa ko yaa ko ëppale ah bu dee ndaagit noonu bu dee xel noonu ah lu yàlla di sàkk ci jigéen rek boo xoolee ba ci biir euh, jegewu la sax mm-hmm. Barça Bambey la boo leen doon mat si yéen ñaar ah alaaji kooku dafay nekk ñaari at jàpp ñett mm. ba mujj gi nii ni ni ngi koy ni lay miine ni ngi koy miine day ëpp boo leen di màggali Touba yéen ñaar yéenay ànd alaaji hmm. ànd ak sa ñaari doom ak muse ah hmm. boo leen di gàmm ji yéenay ànd foo leen jëm bu xew amee ba dëkk ba hmm. yéenay ànd dem wala xew bu amee fii ci dëkk bi tam waa dëkk bi bu ñëwee daanaka sax jànq bi ci moom ngay jël lépp teg lépp organisation bi ci loxoom dem ndugg yi tout moo koy gérer parce que euh, lam la xamal ak nam la miine euh, sa mbokk yi jógee dëkk baag ak mu ñu fi ne mu ne mun xam nga kooku nag moom alaaji nag boo bëggee xëy ba mu sene la daal ne dogal bi daal fi nii daal yaakaar naa ne aaya ba wàcc na maanaam hmm. nii ngay bootoo sama ginnaaw daal laa bëgg jànq bii di bootoo noonu sama ginnaaw alaaj loolu est du diis dina a diis waaye dangay. ah déedéet xawul diis kay nel dina diis. bi nag. ah déedéet nag alaaj nag non defal ndànk nag alaaj nag loolu nag temps bee ñu xoj mais loolu débat la laaj de. yàlla nag dañoo may ñuy takk nag. dañoo may ñuy takk nag mais alaaji bu ñuy takk tamit yenn saa tam dafa war di am foo xam ne dañ faa war di dugal suñu bët bi ak foo xamante ni léeg-léeg ñu wàccee suñu bët bi. ah surtout nag bu fekkee nag bu fekkee nag sax nag euh, jànq bi daa daa gën a mokk pooj. ah déedéet mokkum bi moom ci biir kër gi lépp ci madame la dépendant ah, su dee yow bi moom mooy defar ba defar sa biir chambre à coucher ah ñenn ñi bàyyi seen i jànq ñuy fóot di fóot bay fóotaale loo xam ne ëpp naa tudd ci rajo ah waaw ci ba sa si sa basu euh, jëkkër ah bu heure teg añ bi jotee gars yi fee ngay toog tàllal say tànk di jaay driyanke defar say wey ba muy nes nesi nga naan ko faatu mu naan la naam nga naan ko ñëwal lal mu ñëw lal ah yow yaa ngi tëdd ci biir alaaj ngi nii toog ci ci table à bi alaaj mu ñëw teg indi ay torsion. jànq ñëw indi torsion indi kudd. indi kudd sëgg siggi indi torsion sëgg siggi waaw kay waay surtout sëgg siggi ba. Ah, sëgg siggi woowu nga xam ne léeg-léeg nga daje ak ay góor yoo xam ne dañoo mel ni man dañoo saayre lool léeg-léeg jékki-jékki ni mu waay gone gi kat fi mu nekk nii moo ne tarkalla mi ngi màgg di ah mooy Fatou mii kat dëkk ginnaaw lay màggee moom waaye. yow sax yow sax tudd nga tudd nga bu fekkee Adja bi ci kër gi Sylvie Sena imaam yu def ay affaire am mais am na ñoo xam dañu di ba maar di xëy di jànq si moom ndeysaan moom moom mais nag attention de alaaji de. dreta fort am na ñoo xamante ni naturellement rek. même bu ñu nekkee ci kër gi di liggéey sax. Hmm. tarkal la boo leen gisee da nga yaakaar ne ñoo di waa ji génn <laughs> ak ñoo xam ne nag buñ sañsee di dem sa nga xam ne kii ku xaye di la mm. tabaske korite la jekk mm. Mm. si mais alaaj nag am na foo xam ne vraiment suñ bët bi nag waruñ ko faa dugal nag dëgg dëgg dëgg dëgg fa yàlla nag nañ waxante dëgg rek alaaj te yàlla tax may nañu ba kaat waaye daal suñ bët bi daal ah foofu ma ni foofu du bët nag koo xam ne juróo ko bokkul yaayam bokkul papaam. jàmbur la ci ah, yow day liggéey sa kër donc déedéet alaaj alaaj dëgg la bokkoñ dara mais li ma la fi expliqué léegi nii alaaj ah, ah. imaginel yow bu la daloon tey bu doon jigéen ñi ñooy takk ñaari jëkkër ñetti jëkkër ba ñeenti jëkkër ah sa jabar moo yor yor ab eh, as Ibrahima si ndaw Ibrahima mu ndaw ci biir kër gi di tott tott la yor fukki at ak ñaar léegi-léeg nga tere ko sax na ko Ibrahima mi bàyyi di ko liggéeyloo kii xale la hmm. yoo xam ne ñoragul yaag ibrahim moom ba mu am fukki ak juróom-ñett alaaji wala fukki at ak juróom. wax ah? bu sa xol li sa jabar jékki-jékki gars yi ne la kii daal alaaji nii ngay fanaanoog man noonu laa bëgg di fanaanoog moom mooy alaaji loolu dana la neexa yàlla bindeewu ko noonu. ah déet yàlla yàlla bindeewu ko noonu. waaye nañuy fanaanoo ñaar. Oh, non alaaji nag yow moom sa waaye moom vraiment nañu waxante dëgg nag vraiment nag. mais alaaji. Ah? Euh, eh, xoolal sama xarit moom naan ma ay bakkan jàmm la mais jigéen ñi dañoo yor bakkan ñu yor bakkan alaaji te nag ñun ñu bëggee jàmm xanaa xamoo ñoom ñoo ñu gën a bëgg jàmm te nag ñoom ñuy jigéen bul juum ñoo gën a nooy bu ñu juume benn eh, benn affaire waaw euh, jigéen jigéen la rek waaw kay loqi sa bët waaw da ngay dox ba dajeeg moom rek waaw te yenn saa yi nga gis jànq yi di liggéey hmm. jigéen lañu comme ñu leen di liggéey loo yenn saa yi ñëw di liggéey dàq leen foof ah bu baax foof waaye alaaji affaire bi nekkul dàq de dàq leen bind gën leen a rafet gën leen neex wax. waay waay alaaji gën leen a yeew. Euh, alaaji dàq leen ndaat. togg. Euh, alaaji alaaji man fi ma d'accord ak yow rek mooy <laughs> fa jànq ba yore léppi alaaji. Ah. kay waaw kay waaw waaw foofu moom. yow foofu moom alaaji moom d'accord naa ci ak yow à quatre cent pour cent. Mm. waaw jànq ba daal ay lijjanteem ak kii ay xolleeg ñoomin seen ak yooyu yëpp. Mm. na yem rek ci ginnaaw wàññi. xam koy waaw bu ko fa bu ko fa butu waa ji fekkee nag déedéet waa ji def ci waañ waa ginnaaw waañ waaye yow boo sàgganee yow madam jànq bi mbir naan ci biir kër mooy teg mooy xol li di kole moo lay solal am na jànq yoo xam ne dem nañ bay taamu naan la kii euh, tonton est-ce que doo bu weex bi démb bu bu la bi nga soloon de nga ne non comment moom nga soloon kay laa laa jël sama tante. ah waaw eh Aram. démb man tamit laa soloon muy démb démb démb la lan mercredi. xamatuma ko de man. man xamatuma xa. dama am njëkk di lijjanti say chemise. déedéet mën na laa bañ a wax loolu sax balaa nga koo fëgg mu mbécc mais da nga naan démb démb. ah vraiment nag non papa nag man fàtte naa chemise bi ko soloon démb nag dëgg dëgg nag. ah loolu dama ko mën a jàpp nag yow. waaw nga fàtte nga fàtte chemise papa te ndee la fàttewul chemise papa moom i jànq. waaw te ndew mi ci biir kër gi fàttewu ko. tax <laughs> <laughs> na. dégg nga loolu ah sa ndee la mooy teg mooy tekki waaw nga naan papa mu naan tonton waaw nga naan papa mu naan tonton <laughs> mu taata xoolal muy sëgg di sëggi waaw te benn waaye nee na ma sëgg siggi sa aajo faju <laughs> loolu daa wóor <laughs> loolu moom moom dama fa condamné jigéen ñi moom mais kantaa nag hmm. ay sëbbat ak ay diw dafa rafet ak ay nangam sangam dafa rafet dafa rafet yonent nee na sama maam nee na alaaji sallallahu alayhi wa sallam hmm. doom day yàlla ñu koy jox waaye jabar nag ah yàlla ñu koy jox waaye ñooy tànnal suñu bopp de waaw kan nga mës a gis jabaram jóge ca kaw asamaan alaaj ne putt wàcc ñu ne ko yàlla kat kii lii la sàndil ana foo ko mës a gis <laughs> amul kay waaye nag waaye nag hmm? euh, la Ahmed Sow xi waxoon de waaw euh, da xool waaw daal di euh, muuñ waaw daal di nuyoo <laughs> daal di wax joxe rendez-vous daje noonu la ko waye woon fa nazratu wa tabasamu fa salaamu ce kalaamu maw'idu liqaa déggali xool wax daal muuñ ah. ah waaw mais jànq daal di nuyoo non bi moom nuyoo rek doy na ci alaaj ça va nee na nga def ah tonton maa ngi fi yow looy xool alaaj looy xool ko nekkal doo ko xool ah déedéet nag alaaj non ça dépend xool bi ah ah ah ma digal li alima njoon nee na sàggante googu amatul maanaam faal laay dugg nga ci neegu sey de lay bu yeboo ngeen contrôler seen jànq yi ba eh am na ku ne ma xoola hmm. jànq yi léegi dañuy dem a dem hmm. ba ñoom ñooy parfum sax seen patron yi waaw ah, waaw jël parfum bi nitii te pourtant madame a ngi nii taxaw eh <laughs> non non non indil ko bu bula bi bu bula bi ah waaw tegum cuuraay ah waaw mu sa war a génn nga naan xaaral ma gunnal ko tey la àjjuma mooy boy di nangam janq bàyyi dem boyal <laughs> boo sàgganee sax mu ne la tata démb bële na leen a kii de bee na la kii yoon wuy ma <laughs> cuuraay tës bi moom la moom la laaloon de mhm. est-ce que tey du def ràcc bi <laughs> nga ne ko waaw demal demal demal indi ma poto ràcc bi mu ñëw indi defare ko ko yow man sama loxo yi damaa kii ba pare damaa damaa xoolal wuy ma ba kay fay facture ah jànq mujj na am doole moo moomu ak dooleem joojee nag te nag jigéen la waaw alaaji bul fàttali jànq jigéen la alaaji jigéen la dëgg la léegi nag bu demee ba xam ni alaaji mii neex na ko jànq mën naa nag alaaji waaw mais eh déggoo sëgg sëggi sa aajo fajo bi xanaa xamoo ñenn ñi ñooy provoqué seen patron <laughs> alaaji ñenn ñi ñoom ñooy ñoom seen sëgg sëggi bi yëpp ñoo ko tey <laughs> parce que bu ñu sëggee duñ sëggi parce que xam nga lu koy wane nekk nii jànq bu normal bu ko alaaji waxee waxu suuf sama dem yëgul uh-huh. day uh, boole ji wa wala wala waaw wala ah nijaay <laughs> yaa wax loolu nijaay dootul wax waaye bu la nijaay ne ay eh booy eh, eh, ceeb bi neex na de ah, yaa wax loolu waaye <laughs> dàq ah, waaw jànq di nand de <laughs> madame may nee na ma bureau baa ngi toj waaye taabee dama de waaye lii alaaj oh. beneen siisee ubbeeku wuu nii alaaj jànq yi xoolal koo ci wax ci suuf mu tontu la ci suuf waaw mais loolu nag yabaate laa lay booy sa ceeb bu tey bi neex na de <laughs> tante nijaay ne ceeb bi tey neex na xam nga loolu nijaay dootu ko waxaat bëggut a weejawu mais boo ko jigee dem jël sat léegi dem ci kii bàyyi sa ceeb tay bi naa nga def a ah, yaa ko wax loo bëgg sama ma toggal la ko dégg nga dégg nga dégg boobu la ñuy maye <laughs> benn ñaar bi lu tee mu jàppoo ci salle de bain bi vraiment dem ci douche extérieure pour tasanteeg jàq ci waañ wi nee la <laughs> dëgg la barke alxuraanu karim léeg-léeg nga dem ba ca waañ ba jël satala bi dem ba ca lafago ba barke di di di ko fa rootee léegi nga yaay boo yoo da jàpp loolu tee toog ca salle de bain waaw ndee la ju ma <laughs> waaw ajaa di ci biir néeg saal ba moom ràcc ci tàngam fekk ni ma waxee gole gi di upp <laughs> yëgul li xew <laughs> góor ak ko ci nax mu topp la wallaay ndeysaan yàlla bu ajaa xaw a màggee nag romb cinquantaine jax bi commencé ra jànq jànq toll ci vingtaine deret di jigéen barka rasulillahi mu am ndaag <laughs> ndaag la de moom la ñuy jël ci biir kër yi rek alaaji di sëgg bañ a sikki xale bu la ca gën a jekk daal alaaj ah. moom daal moom daal ca biir kër gi lay ne rek riic ga mel ni tulleeg màlle boo yoree alaaji boo xam ne nag moom daa sàggan dootu ko tegg ba waaw bu dul woon ñëw di añ si chaque jour léegi day añ si foofu nga laal la nag <laughs> yu bëri daaw ñu añ déedéet sax ah. mais léegi-léeg nga am jànq boo xam ne nii tarkal la tarkal la tarkal la tarkal chaque jour da ngay añ si chaque jour nga ñëw añ si chaque jour waaw bu ko defee na nga naan ah man de moom euh, sëriñ bi ah. papa Mor man day ñaan yi nga ma ñaanaloon yëpp macha allah. te gars yi yéen say xam nga lu ñu joué alaaj ah dëgg dañu añ si heure bi ñoom dañuy tàmmal madame sieste léegi madame bu añee jullit bi baax day sieste ñoom dañuy bàyyi ba 15 heures madame commencé sieste ñu yot ndànk dugg ci gàlle bi mën nañ fa am 30 minutes ñu jànq añ añ na gaaw ñu <laughs> ñu góor ñi dañoo doy wax nag ak <laughs> ñoo doy waa nga koy cokkaas ci biir saloo beeg di ko di ko ñangi ñanga léeg-léeg nga romb nag te affaire fu ñu tàmbalee nag mooy tap mooy tapas bi ba tàppe bi ah. waa tonton saañ bi neex na tey waaw bu déggee ma def ne laal buntu bi daa def ni soog simbi simbi ko simbi nag waaye booy man tey ñàkk naa de alors bonjour daal di jóg nag daal di akolaat madame nag nax nax naa leen weeju ñu ngi déglu xam naa ko. <laughs> voilà débat bi dañ koy yëkkati suba dañ koy yëkkati suba yàlla nu yàlla suturaal yàlla nu yàlla jàppale yàlla nu yàlla aar yàlla nu yàlla gën a neexal sëy jigéen itam yàlla yàlla dimbali ba jànqee bu waaye tamit bu ñu sàgganee seenu sëy jël sa jëkkër tey la ko sam jànq. sant <laughs> yàlla loolu ah! nee dëgg rek. kii nee na ma yéen a ngi taal baraag bi noppi leen. <laughs> di ngeen taal baraag bi de kon nag noppi nañ bi eh, alaaj nañ ko fa yemale waaw waaw loolu li daamu ci biir réew mi yombal dépense bi <laughs> tey alaaji Sineer Diop mi nga xam ne daa fas yéene dem kon Makare nag ànd ak alaaji Mansour Diop sama xarit ma mbile miin Maka miin Medinatul Munawwara takk jaaj yi fas yéene dem <laughs> moo dend ak man de ci waxukaay gi ana kan la dend sëtu côté dëkk borom maamu bari yeeru or ba ca midi. <laughs> Babacar maa ngi ñu fi wax tey non non non mais suba suba dañoo war a invité benn jigéen boo xam ne alaaji loolu daf ko dal comme ça mu ñëw toog loolu ñu def ko débat. Hmm. di tës di parce que loolu nga tëj kër yi fi nekk nii. tëj na ko parce que tësu tay bi dafa doy waar. yow yaa ngi gis xale bu jigéen ci biir ko bi ñu koy newal doole nga jël ko fat ko sa biir kër. sa jëkkër ni ko tippi takk ba pare yemul ci boole leen ci biir kër gi <laughs> waaye ne ko copp jël dem ak moom yow bàyyi ci mbedd mi fanaan ci yow sa dex commencé ras mu ànd ba ba dex bu xale bu ndaw waaw góor ah, foo ñu wejje leen li ngeen def naan nañu ko alaaj buñu faaw ñu eggale <laughs> soo ñu yeggali ko kay surtout <laughs> ku tedd ki borom maamu barrière or ba Chamadine Serigne Ahmed Aïdara Karara le médiateur de la ville de Guédiawaye waaye tamit borom mouvement bi Guédiawaye laa bokk waaye tamit le buteur de tous les temps des médias le médiateur Euh, des médias borom joni joni mi ngi nii te gisagul xaalis joni joni ba léegi borom publicité baa ngi ni le Chérif bi bu mag bi nga xam ne nag maanaam moom moo nekk ci rajo bi waaw koy waay <laughs> di leen jox kon dig daal jee suba incha allah